sëñ Modou wa tiir ba naas yi ñaar fukki saar la. ñaar fukk. vingt saar. Mhm. yoo xamante ni njëriñam mënee su koo lim. lu ne lay def. Mhm. moom dañ na passe partout la. tey dinaa leen ci jox ay mbir yu doy waar. est-ce que. mbokk yi. cabinet Sajaratu Touba ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal adresse bi nag benn la ñu nga ci Kër Massar terminus su 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 wala 77 507 38 63 yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jaaxle woon ci xeetu feebar yi moo xam diabète kyste fibrome arthrose impuissance sexuelle maanaam tëlee ci wàllum sëy moo xam prostate hémorroïde bi feeñ ak bi làqu maladie dermatologie sa bi yaram bi ami jafe-jafe am na fa tamit massage automatique ba ci massage manuel Serigne ma liggéey mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi ne ma sa jaratu Touba bi képp koo xamante ni da ngaa am jafe-jafe ci wàllum kayit maanaam nga tukki wala it nga bëgg a tukki wala it nga bëgg ay muslaay képp koo xamante ni tamit cet da laa sonal rawatina nag nga bëgg a ubbeeku nga bëgg am kaaraange maanaam aar sa bopp waa jaa ngi nii Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal dina la tàggat ci wàllum xam-xam maanaam secret yi nekk eh, ci téere alxuraan yi mën nga fa yegg si ngir wecceeku ko kon mbok mbokk yi adresse bi benn la Kër Massar terminus 53 cabinet Sadiaratou Touba ca Kër Massar terminus 53 ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal mbaa ngeen woo ko ci 77 539 19 04 wala 77 kon mbokk yi xarit yi yegg leen fa seen aaja faju jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi nga xam ne yéen ñu topp di ñu seetaan ci seen télévision bu mag bi ñu amati mbégte ak kontaante ànd ak yéen ci seen beneen émission tey nag ñu fas yéene waxtaanee njëriñ yi nga xam ni mu ngi ci biir asraar ba léegi waaye nag tey dinañ waxtaanee ay secret yu yaatoo yaatu yoo xam ne boo ci boo ci làmb rek njariñ la xam naa duma guddal dama jox Serigne Malick bu ko defee rek ñu mu mën a nuyoo ñu mën a tàbbi ci biir waxtaan wi Serigne Malick ñu ngi lay nuyu. sëñ Modou ñu ngi lay fay a aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi mm-hmm. rahmaani rahim mm-hmm. alhamdulilahi alqudusu fi xaybil haahut almutajalla bil asma wa sifaat fi xadrati lahut almaabudu fi aalami malakut wal jabarut wal mm-hmm. wa kullu man amana bihi min al jinn wal ins sëñ Modou ñu ngi lay delloo nuyoo di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi waaye di nuyu mboolem internet yi nga xam ne ñu ngi suivre bi di Secret waaye di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkk ci yéen waaye di leen ndokkeel tamit ci weeru gàmm wi nga xamante ni xam naa dina teru benn fanam di dimanche incha allah taala xam naa ne lu màgg màgg ca benn fanu dimanche rek dafa màgg wax ma la ak muy weeru gàmm su ko defee ne gars yi gën a yokk kurus yi te gën a yokk jukki alxuraan yi te ñaanal lépp def ko addi yéen di salaam salaam jërëjëf bisimilah. macha allah jërëjëf Serigne Malick ci nuyoo bu tedd boobu ñu ngi la ciy jaajëfal tey nag sëñ bi ñu fas yéenee waxtaanee ay njëriñu yaatoo yaatu. Mm-hmm. bi ci mel ni watiini bannaasi mu mel ni bari na ay secret yi nekk ci biir. Mm-hmm. danañ ko waxtaanee waaye danañ waxtaanee it li nga xam ne mooy bayra tubaab ndax yaakaar naa ni bayra la bu am solo. Mm-hmm. danañ waxtaanee it nit ñi nga xam ni maanaam dañuy téye benn tur wala ñu téye dara di ko sikar mhm. lu yàgg amaana duñ ci gis dara mhm. danañ ci waxtaan la koy waral mhm. nit ki nga xam ne it day sangoo ba saafara ba sonn te it du gis résultat li ko waral danañ ko waxtaanee waaye damay njëkkee ci li nga xam ni rek mooy téere sajaratu naayim dafa mel ni ci weeru gàmm gi nga wax dañ ciy def promotion bu xéewale sëriñ bi dañuy indil tuuti rek ci li nga xam ne mooy sa naayim sëñ Modou ñu ngi lay ziaraat bu baax macha allah euh, ñu tàmbalee suñu waxtaan tey ñaan nag mu wuyoo barkeb turam. amiin garab goo xam ne garab goo xam ne ay xéwal dong lay meññ. Mhm. xam naa li naan wax waxaat du bëri wax. Mhm, waaye fàttali la mhm. tubaab ne la répétition est pédagogique. kii moom yaakaar naa liñ ci leeral ci ay ngëneelam du jeex. ci xeetu secret yi nekk ci téere bi yëpp. dëgg daanaka loolu jarul ñëwaat ndax day guddal jël bi rek. waaye weeru gàmm gi nga xam ne mooy weeru yonent bi alayhi salaam dañ cee def promotion. Mhm. téere bi mi ngi doon jar soixante mille ñu def réduction vingt mille di ko jaay quarante mille francs kon téere bi prix mi ngi ci quarante mille juróom-ñetti junni. Mhm. tàmbali na la onze septembre war a jeex le vingt sept septembre incha allahu taala. kon bu ñu gàmmoo ba ca guddi ka. Mhm. ba set di la vingt huit. day delluwaat ci soixante mille francs comme Sagartul Xuldi. incha allahu taala. macha allah jërëjëf Serigne Malick loolu yaakaar naa ni leer na kon képp koo xam ne yittewoo nga ko rek. Mm-hmm. Euh, promotion baa ngi noonu euh, guddi gàmmu lay yem. Mm-hmm. bu ko defee rek sëñ bi ñu wax tamit ci li nga xam ni mooy bayra tubaab yaakaar naa liggéey bi fi la ñu fekk. Mm-hmm. waaye dafa mel ni noppi na. sëñ ki nga xam ne day yittewoo bayra tubaab bu wér. kooku su ñëwee ni muy def. sëñ Modou. bayra tubaab bi. macha allah liggéey nañ ko noppi. ci liggéey bu mucc ayib. waaye def nañ ko ci anam boo xam ne nii di ko gis. dañ ko liggéeyee mhm. daanaka bu ñu la ko doon yónnee doo sonn ndax lépp dañ koo liggéey ci ay sunguf mhm. kaas ko defar ko ni ñu ko war a defaree lépp macha allah nii dañ ko def ci ay sachet ku ci bëgg insha allahu taala comme la ma la waxoon rek prix bi cent vingt cinq mille francs la mhm. ñun nag euh, du nu nëbbatu du nu làqatu nëbbatu làqatu mooy lan euh, boo ma wooyee doo ko xam prix bi damay wax prix bi mu leer Uh-huh. su ko defee képp ki nga xamante ne mbir mi jaral na la te yitteel la muy sa yitte te nga am ngëm-ngëm ci suñuy wax uh-huh. nga ñëw ñu jëflante incha allah li ci des ñu bàyyi loxo yàlla macha allah képp koo xam ne nag am nga sikki sàkk wala deng-deng uh-huh. kooku jéggal nañ la jarut sax maanaam ngay woote ndax loo gëmul du la jëriñ def naa ci alquran shifa ak rahma waaye ci way way gëm ñi ñi gëm alquran lay jëriñ ku gëmul nag jarul sax macha allah allah. Mhm. jërëjëf loolu am na solo kon nag yaakaar naa ni euh, wax ji leer na képp koo xam ne rek yittewoo nga ko. te mu te nga am ci yàqin wala nga gëm ko. Mhm. boo ñëwee jàkkaarloog sëñ bi yaakaar naa ni di nga ci am lu taw féexe. jaaro bi ñu ngi ko dippee rawxaaniya ndax xam ngeen rawaan bu ñuy wax Shamsu Xoroshin wala rawaan bu ñuy wax yaa Seydi may dataroon moom lañu ko liggéeyee ak leket bu bees xaru benn melo wala ganaar jaaro bi ñuy defar ba noppi ak sikar samo àndal su paree jàppal ni yow ak rawaan yi yéen a ànd mu lay dimbali ci lépp loo bëgg ubbi sa wërsëg jox la bayre di la aar boole bi nag li muy bañ takku ko ba pare ànd ak koo xamante ni takkuloo ko maanaam di njaaloo wa ilaa nga am wërsëg bi la yàlla jox doo ci sédd jam yàlla yi maanaam doo partagé jaaro bi nag kenn du ko defar di ko teg ci barab sur commande rek lañ koy defar maanaam da ngay jokkoo ak cabinet Sajaratu Touba moom Serigne Malick Gueye mu baax mi ña nga ca Kër Massar terminus 53 bi numéro téléphone bi 77 539 19 04 77 539 19 kon ñu wax ci li nga xamante ni maanaam mooy nit ki nga xam ne day zikar te amaana du gis dara. Mm. wala nit kuy téye saafara di ko sangoo ay fan yu baree bari. Mm. te du gis dara loola moo koy waral. sëñ Modou laaj nga solo. Mm-hmm. loo xam ne question boo xamante ni. Mm-hmm. dafa fréquent. Mm-hmm. wala fréquente mu mu tubaab waaye nag damay jéem a. <laughs> <laughs> su ko defee souvent dañ la koy wax dañ la man damaa sangoo saafara ba sonn gisuma dara. wala damaa sikkar tur ba sonn gisuma dara. loolu nag dafa bëri lu koy waral na ngeen bàyyi xel poñ yi may bëgg a tudd benn bu nekk mën na waral loolu. Mhm. biñ ci njëkk mooy nit ki nga xam ne dafa jël tur yàlla boo xamante ne amu ci ndigal. Mhm. masalan tey dégg tur sàngam baax na rek nga koy liggéey. nga jël ko kooku mën nga liggéey ba son doo gis dara. Mhm. ñaareel poñ bi mooy ki nga xamante ne tur yàlla bi mu yor. maanaam moo wéru tur bi wéru. am tur yoo xam ne mm-hmm. wéruñu. Uh-huh. waaw. Mm-hmm. fabrication la surtout tal talsami. Mm-hmm. da cee bëri yoo xam ne dañuy fabriquer rek. est te ki ko fabriquer maag moo yem xamul ijaaza ci asrar xamul dara ci lasrar. daa jàpp ne chiffres yi boo ko calculé mu tolloo rek mu daal koy dóor daal lay jox. <laughs> est-ce que loolu kéemaan la. <laughs> kooku code boobu du ibi dara. xam nga liñ ñu naan code erroné. daa am tur yoo xam ne ni ay code erroné lañ maanaam dañoo périmé. daan nañ dox. ñoo mhm. doxatuñu doxatuñu mhm. te loolu nag il faut nga xàmmee tur yi pour mën a xam yi dox ak yi doxul mhm. ñetteelu poñ bi mooy ki nga xamante ni ndeem am na tur yàlla waaye xamul saraxu tur yàlla bi mm, kon tur bi daal faaw nga xam saraxam waaw lépp loo gis dafa am loo xamante ni mooy tax nga mën see jëriñu mooy caabi bi daal mooy caabi ji macha allah sëñ Modou tey yow mii li ngay doon doon doomu aadama am na loo xamante ni seen waa kër xam nañ ne Modou mi bis boo ko toggee. bis hmm. boobu lu ma mën la koo jox. Hmm. <laughs> dëgg la plat préféré ah. Uh-huh. lay tudd. Hmm. léegi nag plat préféré boobu rek mën nañ cee koñe Modou. mën nañ cee naqaral Modou mën nañ cee bégloo Modou. waaw ah. sarax noonu la mel ci tur yàlla. est-ce que xaan yoo xam ne bu leen génnelee doon benn doomu biscuit doomu ñu kontaan réagir. waaye nga koñe leen ci loolu ñoom ñoom ñu tëj bunt yëpp. loolu de kéemaan la. waaw. beneen bi aussi mooy am na ñoo xamante ni maanaam dañuy liggéey tur yàlla waaye sellaluñu. Hmm. sellal bi nag dafa bëri ay façon du caagi ne du ma njaaloo rek wala du ma nàngam waaye yu bëgg yu bàkkaar yi gën a mag a ngi fi ay fen am na ñoo xamante ne dañuy liggéey tur yàlla ñoo dàq fen kaay ñu fen. Hmm. dañuy liggéey tur yàlla dañuy jëw ak arambaaj di jaxase ay nit dañuy liggéey tur yàlla te seen ngërëmi waajur ñu ko loolu foofu nag mooy danger bi gën a rëy nag gis nga boo bu fekkee ne yaa ngi say waajur tarbiyu leen ku la joxoon tur boo xamante ni maanaam da ngay fanaan arasa ka ñëw tam doo gis tus parce que li dox sa diggante ak say waajur loolu moo lay kale. Mhm. kon loolu ba ta bàyyi xel waaye sëñ Mor ba tey am na si ñoo xamante ni dañuy sikar tur yàlla mais xamuñu ban waxtu lañ ko war a sikar. Mhm. dañuy tërale rek waxtu wu ñu dóor naaj bu tàng guddeeg bëccëg ak mbooloo mu bëreeg muy taw ak muy naaj ñoom daal seen lu néew ci saa bu ci seen xel nekkee rek seen xel ñoom daal seen xel fu mu nekkee ñu def ko ñu ci ngoom rek ba bu yàggee dootul mm-hmm. ah. ah. defee da ci am nag boo xam ne moo ci gën a doy waar mm-hmm. te boobu moo gën a nekk danger mooy ñi xamante ni xamuñu mbirum rawxaan ak ilmu rawxaan yi boo ko xamul ci sikar mën ngaa tardé. Mhm. dafa am rawxaan yoo xamante ni dañuy toog ci dëkk bu ñu toogee ci dëkk. Mhm. te yow xamoo lan lañ bëgg da nga yor tur di liggéey ba soon doo gis dara parce que ñoom ñoo ñoom ñooy rawxaanu dëkk ba. est-ce que. masalan tey nga jóg a Dakar ne maa ngi dem Fouta. Mhm. bu demee Fouta am na réalité yu fa nekk yoo xam ne ni boo ko xamul doo jëriñu. dëgg la wala nga jógee Fouta ne maa ngi Dakar rawatina nga ñëw Yoff nga ñëw Cambérène. wala nga ñëw jàmmalaay mhm. wala nga ñëw mbaaw wala barñi li may wax nii connaisseurs yi xam nañ li may wax mhm. wala wakaam nga ñëw rek yor sa kurus di yëngal boo xefee <laughs> la benn waaye sama benn waaye nee na ma waaj daal di ñëw rek dem wakaam mhm. ne day dugg xalwa commencé tàllay cuuraam kocc koccal rawxaan bi eh, bëgg solo bu mu egg laa wax <laughs> est-ce que <laughs> kon de waaru na nee na mu mu mel ni man dëgër fi rek na kii damay fonto waay commencé waat dégg naa saa yi bi mu ñëwaatee bi mu ko mbéjee gendarmerie Wakaam bi ci guddi gi fa la fanaane est-ce ndax wër na wër amul fu mu fanaan te ñemeetul kër gi ma mhm. dem ba gis gendarmerie Wakaam bi toog fa <laughs> daanaka ñeneen taw li ma la wax ni réalité taw mhm. taw ji ko yóbbu mhm. ci loolu la jaare est-ce waral yooyu yëpp dafa mat a xam beneen bi aussi mooy dafa am ñoo xamante ni dañuy nekk ci gox dañuy nekk ci benn gox yor benn tur raw xaan boo xamante ni lu waaye liggéey guddi gi loolu liggéey ci tur yàlla moom moo koy naan moom daa mel ne dafa taaj ndam rek. Mhm. ngeen ci sotti. est-ce que. te rawaxaan bu turam xaal lonk la tàmbalee jeexee siin. Mhm. kon du li may wax xam naa ku baax. Mhm. nga ne boo ko yore tey boo xamoon tey moodu mi moo tax ñaare mag ngi daan tere di ngay wax li ngay sikar te amagoo ci fat ko. boo ci xasee am fat ko nag jeex na mënuñu la mënuñu laa sëlmu ci dara mais bu fekkee da nga tàmbali benn dog di ko sikar muy neex nii. foo toll naan dog bi laay léeg-léeg saay-saay xam li ngay sikar mhm. jël sa tur ak sa tur yaay ak dog ba am nu mu ko def toog di liggéey bu liggéey ba pare dem tëdd jàpp njàmbaram di nelaw yow ngay def ay ay dog yu dul jeex mhm. ay safta yu xak akala mul kanak loo jekk door doo gis dara fekk waa ni mu ngi koy naan maanaam day mel ni kalandu rek da ngay daw versi da ngay <laughs> kii maan la comprendre nga uh-huh. gars yi daal mhm. da ci am ñoo xam ne dañoo yor seen seen carnet toog nga leen di verser est am na si ñoo xam maanaam dañuy nekk ci bërëb boo xam ne afaar ay afaar yi dañ fay nekk. Mhm. wala lu mel ni ay raw rawxaan yoo xamante ni. Mhm. ñu la Omarul Makkaan ñoom la ñuy wooyee nga xam ne ñoom dañuy dundee leeru yàlla. Mhm. nga xam ne ñoom ci loolu la ñuy dund. nga xam ne bu boo toogoon tey di si sikar rek ñoom dañuy ñëw sa sa côté commencé di aspirer. te misaal bi ma lay jox am na benn kii gunóor bi ñoo wànq. ah xam nga ko. wànq mhm, maa koy dégg. da ngay dégg sax olof yi naan wànq lu muy dox noor. lu dox noor. ah mhm. moom nawet ba nawet lay jóg. c' est parce que période boobu la gerte di am. Mhm. def ko ci biir euh, seko lañ koy tuddee xaw ma lan jal ko foofu léegi wànq boobu moom day naan gerte gi te dugg ci biir. allahu akbar loolu lu garaaw loolu. moo tax la joxee misaalu ne kon nit war na nekk fee mën a naan sa leer rek gëmal loolu. ñaari ñaari rab benn bi monaat la benn bi wànq monaat du nàmpal ay doomam amul ween amul dara. Mm-hmm. moom da leen xool ñu suur. su doom yi bëggee am dañuy ñëw taxaw mu xool leen ñu suur. Mm-hmm. ah moo waral borom tur yàlla dëgg-dëgg sax ñi ci ëpp xam nañ ne mbonaat am ko ci sa kër dafay am lu muy xëcc. macha allah dafa am lu muy xëcc. Mm-hmm. waaw su ko defee wànq noonu la mel léegi dafay dafay xëcc gerte gi diw gi moo waral ñuy wax gerte gi pëpp la pëpp. Mm. boo déggee ñu ne waaye saa yow doo dara yow pëpp nga rek. mooy mm-hmm. xottu nga nii dara newu ci. Uh-huh. moo waral nga jënd gerte di toj. di toj di toj rek fekkoo fa dus. Mm-hmm. te gerte nga xarut. Uh-huh. <laughs> nga war a jaaxle. yooyu day faral di am. Mm-hmm. olof ne na cin faqul bënul yax ba ne mes. loolu waxin la su ko defee ñooñu tamit dañuy yor tur yooyu rawaan yooyu tamit dañuy ñëw di naan sa leer ngay sikkar doo gis tus. bu dee ki nga xam ne dafay sangu. moom tamit am na ñoo xamante ne dañoo fees dell ak raw xaan mhm. dañoo fees dell ak raw nga xamante ne ñoom dafa mel ne ñoo ñoo ñooñu ñoo ñëw nu ma ko mën a misaale tafu ci sa kaw masalan tey Modou ma ñëwoon bëgg laa jëriñ dara mhm. ma bëgg laa jox xaalis wala dara mu am ay invisible yoo xam ne dañuy taxaw sa kanam di nangu te gisoo leen est-ce <laughs> mhm. loo sangoo ñu jël ko dem seen yoon loo takk noonu moom daal doo doo def dara loo gis kooku nag dafa am ay yoon yooy jaar pour mën a dindi loolu. Mhm. kazaalika am na ñoo xamante ni dañuy sangu ba suñ duñu gis dara. Mhm. parce que aussi lañ leen jox comme ay càngaay wérut càngaay wérul dañoo bëri. dëgg la bari na moo xam muy sunguf moo xam muy mbind da ci loo xam ne dara wéru ci. Mhm. am na si ñoo xam ne tamit dañuy sangu duñu gis dara ñoo ko yóbbee seen bopp parce que alxuraan bëggul sobe. exemple tey nit jox la saafara su baax nga sangu ñetti fan commencé nga ibbeeku. Mhm. ah bayre bi commencé ñëw xale yu jigéen commencé laa dar seytaane mën la nga ne ah non garaaw xam ànd ak xale bi rek benn yoon rek la wala ñaar yoon. Mhm. nga dem jaaloo ak moom benn ñaar mu jël ko est-ce que dama yàlla jégal ci wax ji mhm. gis nga jigéen ñu bëree bari tey sangoowuñu bayre takkuñu téere mais ñoo ëpp gàllaaj góor ñi parce que lu su lu góor ñi sangoo ñoom ñu récupéré ko ci ñoom. ñu récupéré ko. <laughs> yàlla yàlla mosal ci loolu su ko defee. am na si ñoo xam tamit dañuy sangu. Mhm. d' accord ñeme nañ sangu mais aussi xamuñu yan waxtu la ñuy sangu. Mhm. cangaay am na waxtu. ak fi ñu koy defee. ak fan lañ koy defee. Mhm. na nag léegi salle de bain yi moom ku ci sangu xamal ne yaa ngi ci danger salle de bain kenn du ci sangu alxuraan. man léeg nit wax moo ko ne ma non nangam rek fii non fii ndox mi mën na ko déedéet gis nga fi nga taxaw di sangu. même bu dee salle de bain ku ne xam ne nit ni ko pour sangu. balaa moo pare dana dana tuur ndox fi mu taxaw. Mhm. parce que loolu ndox mi moom moo koy moom moo koy xëcc. Mhm. te tuur ndox moom mi ngi ci biir foofu. saw moom mi ngi ci biir. Mhm. moo tax alxuraan da ngay dem fu set nga sangoo ko. bi tamit gis naa ñuy wax ay erreur naan alxuraan boo koy sangoo waroo def taati neen da war a sol. tubéy wala kii loolu c'est faux loolu moom amul moom. tax cër bi maanaam cër bi du sobee. dëgg la maanaam ah cër yi nii. ba ci egg ci suuf. tànka taxul sobe du sobe. Mhm. awra bi ngay wax noonu du sobe. Mhm. <laughs> du sobe tànk amoo sobe mën nga jimeeku sangu ba set ñoom ñëpp sax dañoo war a tooy nag far. Mhm. ndax ñoom ñëpp dañoo soxla ci barke bi. waaw <laughs> voilà kon du noonu. maanaam ni loxoy nekkee cër rek la nekkee. na nekkee cër amul benn sobe. kon nag bul ko jël bu ko garaawal wala nangam ak nangam. te kon xanaa kon jàpp waruñoo jàpp ndax ñun bu ñu bu ñu demee toilette. ci loxo bi. ci la ñuy defaroo. Mm-hmm. bu ñu sawee ci la ñuy siwoo. Mm-hmm. te pourtant loxo bii nii du ñu jàpp <laughs> dañ koy boole. nga ciy bokk ah mm-hmm. kon nañ bàyyi yooyu yooyu amul sens. kon sëñ Modou yëpp kon nit ñi nañ ko bàyyi xel te xam ne. képp koo xamante ni bëgg ngaa jëriñu dangay dem ci ku xam mu teg la ci aw yoon. ñu bàyyi làmbatu bi. jërëjëf sëñ Malick loolu am na solo kon yaakaar naa ne leeral yi am na am na solo bu baax a baax waaye sëñ bi ñu fas yéene wax ci li nga xam ne maanaam mën naa ne muy lu am solo. Mm-hmm. muy li ko watiini ba naas yaakaar naa ne bari na ay secret yi nekk ci biir. Mm-hmm. lan nga ñu ci mën a leeralal comme ay njariñ. sëñ Modou macha allah watiini ba naas bari na ay njëriñ lool lool lool. ñëw dinaa waxaat benn point yoo xam ne bu ko fàtte. Mm-hmm. mooy ñenn ñi tamit li tax ñuy sikkar mënuñoo gis dara dañoo boole ay tur. tur yu dama la ko mën a misaalee am na benn feebar bu ñuy wax lupus. lupus lupus waaw. Mm-hmm. feebar bi dafa mel ne léegi sa anticorps yi ñooy lekkante seen biir. Mm-hmm. su ma la ko misaalee dama naan say rawxaan ya mm-hmm. les gardes. Ah? Uh-huh. ñu ñu ku nekk masalan tey entreprise bi moo du ki nekk gardien ñu war a service entreprise bi ñuy xeexante seen biir. maanaam ku ëpp sa morom doole rek. da nga koy lottal. noonu la demee léegi nag boo boolee tur yu bëri. rawxaan yi dañuy xeexante seen biir. moo waral souvent am na koo xam ne liggéey ba son du gis dara. kon nañ ko bàyyi xel. Mhm. sëñ Modou wa tiir ba naas ñaar fukki saar la. ñaar fukk. vingt saar. Mhm. yoo xamante ni njëriñam mënee su koo lim lu ne lay def. Mhm. moom dañ naa passe la tey dinaa leen ci jox ay mbir yu doy waar. est-ce que. watiini ba naas bokk na ci ay njëriñam mooy diggante nga tàmbalee ci watiini ba suuratu naas muy ñaar fukki saar. képp ko xam ne bëgg nga am mucc ak kaaraange nga xamante ni. day wax ne même bu comme li xew nii Maroc séisme. Mhm. ñu ne yàlla bu bu doon xa màbb suuf si sax yow dina la may puqus boo xam ne da nga ci mën a fanaan ba bët set. te doon mhm. benn jafe-jafe. macha allah mooy guddi gu jot balaa ngaa tëdd na nga jàng watiini ba naa si muy ñaar fukki saar yi. Mhm. loolu yomb na. yomb na waaw. amul lii amul laa yow daal fexeel bu guddi jot boo julee sa gee ba noppi waa ngi tëdd. booy laa yaa xam ne da ngay tëdd. ubbil sa kaamil alxuraan nga tàmbalee watiini ba naa si am yate bi rek ngay wut. loo loo yaafus yaafus wax dëgg yàlla yow nga nga mën a jàng français. Mhm. tàmbali CI ba am baccalauréat ba am maîtrise ba am doctorat wax dëgg yàlla. Mhm. langue bu nekk nga bëgg espagnol. yaa ngi def portugais lu ne nga jéem koo xam te alxuraanu yàlla ji mënoo cee jéem a xam liif loolu gàcce la. Mhm, gàcce la ah ni nga def ba xam lee fexeel ba xam lii. kon képp koo xam ne bëgg ngaa të loolu të lañ ko wooyee wa tiina wa naas de ko jàng ko di ko jot képp koo xam ne ba tey të bëgg nga ko mucc. na nga bind wa tiina ba naas nga def ko ndomba. nga def ko ndomba ndomba benn gaw kese amul juróom-ñaari gaw amul ñetti gaw benn tëjukaay kese nga koy def. Mhm. nga xool même bu fekkee yàlla dafa dogal say mbir di jaxasoo di yàqu nii boo ko jëfandikoo nga takk ko dangay gis macha allah rawatina tamit nga bindaat ko noonu sangoo ko benn yoon. Mhm. ba tey koo xamante ni bëgg ngaa mucc bindal wa tiini ba naasi nga wut puudaru borom fetal fetal bi ñu tiire poudre bal bi mhm. boo demee ci marché yi dañ koy jaay ay caaro yoo lu mel noonu mhm. nga def ko ci biir di ko sangoo nga xool léeg nit dama laaj ay ñaata fan sangaay moom sangul ba doyal sangul ba yëg ne moom sangu nga mhm. mi ngi mel ne ñu tegal la lekk ne la lekkal kenn du la wax ba suur ak jug bu la ko diggalee sangul ba doyal ba keroog fu mu yem rek kon su ko defee sëñ Modou boo tiini ba naa koo xam ne nag dangaa bëgg raxas sa yaram maanaam da nga doon liggéey di am xaalis nga nekk ci état boo xam ne état bu macha allah nga jékki-jékki lépp gasax yàqu. Mhm. te nga bëgg a at dégg lu baax li ma lay wax da ngay bind wa tiini ba si waaye nag li muy àndal moo xaw a jafe garab gi ñuy wax wén pëli di ko wax bani. Mhm. moom ngay am juróom-ñaari garabam yu bokkut yoo xam dañuy séenante sungufam ah. Mhm. moo nekk nii kii. sunguf benn nii. moo nekk nii juróom-ñaari wén yuy séenante. boo bindee. ba tiini ba naaj ba pare utal sa leket nga def ci saafara si nga jël ci poudre sunguf si comp si juróom-ñetti comp yu dëgër juróom-ñetti mm-hmm. def ko ci biir bàyyi ci jaaro xaalis ci biir nga commencé ko sangoo jeudi ba jeudi dellu si huit jours mm-hmm. sañ <laughs> moodu yaram bi dana set wicc te di nga laal ci somu xaalis loo xam ne nii ba nga juddoo ba tey mosoo ko laal est-ce que li may wax nii mm-hmm. li gars yi naan je parle en connaissance de cause lu ma xam laay ba tey ki nga xamante ni day def liñ doon jàmbat sànq mooy moom daal lu mu sangoo du gis tus mhm. lu mu sangoo du gis dara na garabu yiir yiir mut mhm. ci juróom-ñaari yu bokkul ba tey juróom-ñaari yiir yu bokkul mhm. su ko defee mu daal di bind mu def ci juróom-ñaari yiir yi fay ci juróom-ñaari xali safara mu sangoo ko ba man vingt jours mu xool après mu doog xoolaat yeneen sangat yi mu yoroon mu koy laal mu xool mhm. yaram bi dana set ba lu mu laalate mu neex insha allahu taala macha allah watiini ba naasi mhm. sëñ Modou ba naasi bu fekkee da ngaa bëgg a am bayre mhm. da ngay bind watiini ba naasi boo paree nga wut tàggum segal picc mu ñox segal segal waaye nag soo koy ut li ci gën mooy tàggum segal boo xam ne ci kaw guy nga ko jëlee moo ci gën te boo koy àjji mu bañ a laal suuf mu bañ a wadd ci suuf. Mhm. nga def ko ci biir saafara si boo la nee nga lakk ko mu nekk dóom def ko ci saa la nee nga def ko ci noonu léegi di ko sangoo ko xol. est-ce que rawatina bu fekkee nit ku bëgg a siw ni nga xam ne bu bëgg am tur. Mhm. waaw xam nga segal. mooy picc mi nga xam ne day taxaw ci kaw branche bi di di di yuuxu uh-huh. ba mu ànd ak branche bi mm. <laughs> bu damm. macha allah ñaare branche bi muy tag dama day wow koŋ. Mm-hmm. da ngay coow coow ba li nga li nga taxawoon <laughs> uh-huh. na am kaaraange. Mm-hmm. waaye joxe naa ay kaaraange lu ko jiitu kon. Mm-hmm. sëñ nag tëjee ak secret bu mag boo xamante ni dama ne woon ma ko joxe. mooy ki nga xam ne da bëgg ku la laal ñandu mag ñoo ko daan wax ku la laal ñandu. mooy ku dootu ko defati waaw koo xam ne moom mhm. dañ la dëkkee liggéey di la yàqal ba nga xam ko am na ñoo xam ne ñi leen di liggéey xam nañ ko ñoom dëgg la xam nga am na ci yoo xam jarul seetlu sax dem mhm. am na koo xam ne yow leer la ne laaj ne ngi lay liggéey chaque jour xam nga ko mhm. waa léegi bëgg nga mbaay la bindal wa tiini ba naa si waaye nag saar boo bind dangay bind tabat yadaa wa tiini ba naa si saar boo bind tabat yadaa même boo ñëwee ba ci tabat yadaa da ngay bind ñaar fukki saar tabat daa mi ngi ci biir. Mhm. kon boo bindee loolu ba pare léegi da ngay dem ci marché bi nga jënd fa sungufu xay. Mhm. ak jaanu ñàngoor yaakaar naa am la ñuy wax cobra. Mhm. bopp bopp bi dañ koy jaay nii bopp bi. boo ñëwee da nga koy lakk bu nekk dóom nga boole koo kii bi sangoo nga sangu ci lu ma 11 jours nga xool gis nga càngaay la boo commencé sangoo fan ngay xamee baaxaayam li ma la wax nii lu ma xam laay wax. da ngay yeew gis sa bët yi day fees del ak laas ay laase. Mm-hmm. loolu nag cangaay lu baax rek moo koy def bépp cangaay bu ñu la jox nga sangoo ko xëy ba di fees dalal laase xamal ne mi ngi dindi ci sa yaram loo xam ne xamoo nu mu toll est-ce que na mel da ngay mel ku wànneen daal da ngay mel ku mm-hmm. boo yeewoo sax nga xam ne damaa wànneen fekk wànneenoo sangaay mm-hmm. li la jox moo baax macha allah waaw kon ñu bàyyi ko xel kooku mu doon du ma ko joxe am na nag boo xam ne mooy daj dëpp gi boobu moom li gars yi naan famine bi usnin wala famine bi famine wala ñuqi mbaa ñaq wala uh-huh. ñaq mbaa ñuqi <laughs> du ko joxe ci internet bi. sax du ko. dëgg la boo ba naasi la waaye dafa am nu ñu koy bindee. Mhm. boo paree dafa ànd ak ñetti garab. Mhm. kooku boo ko xasee am bu la neexee dencal sa soo lu la waay wax. Mhm. luñ la mënti wax ci kaw suuf compal joxe da ngay noppalu ci bind. macha allah waaye loolu du ma ko wax. ku ko bëgg da ngay ñëw ñuqi baa nga ñoox. macha allah <laughs> jërëjëf. wala nga ñàkk baa nga ñuqi di moyes comme ni nga ko waxee. incha allahu kon sëñ wa tiinu ba naasi bu ñu doon wax ay njëriñ. dañ fi fanaan di moyes. kéemaanu yàlla la. dëgg la lépp la mën. Mhm. waaye nag am na sax ñu wax ne am na ñu wax ne. 21 mhm. saar yi moo gën a garaw 21 waaye su boobaa da ngay tàmbalee ci alam nasrax. Mhm. ba naasi alam nasrax ba naasi. mais moom dañ ne pas kooku moom ibbeeg mos am na sax ñu ko woon euh, ñuy wooyee cangaayam ne ku ko sangoo di buur noonu lañ koy wooyee ku ko sangoo. di buur di macha allah loolu moom doole ji xam nga ñaar fukki garab ak benn lay àndal 21 garab yu bokkul. benn saar bu nekk am na garabam. loolu nag xam-xam la. Uh-huh. su ko defee buur yi lañ ko daan defal ñu koy sangoo. Uh-huh. moo tax ñu ne ku sangoo di buur. moo tax en temps de élection yi xew nii ñi xam secret yooyu. ci la ñuy liggéey ci la ñuy liggéey. macha allah <laughs> jërëjëf sëñ Malick loolu am na solo comme li mu wax rek ci watini banaas. Mm-hmm. yaakaar naa ni leer na macha allah. Mm-hmm. waaye des fois da ngay dugal benn benn secret. Mm-hmm. am ñuy laajaat naan loolu bu ñu ko defee pare luy doon saraxam ndax yooyu day ànd ay sarax. waaw am na ci loo xam ne man saa souvent su may joxee secret. du ma mhm. bàyyi dara su amee sarax. Mhm. dafa naan leen da ngay saraxee nangam. Mhm. bu amul sarax nag jàppale ni ma ko waxee noonu la. ma profité tontuwaale ci vidéo bi ma defoon ci Izaa jaa nasrullahi wal fath. bëri naa ci ay question te question yi mënuñoo tontandoo ñëpp. sëñ Modou gis nga li ñuy liggéey na méttee. whatsapp bi man du ma tànqamlu. dëgg la su ma mënta liir nag du ma liir mais su ma liiree damay tontu. waaye boo amee seetlu damaa wax ne. nasrullahi wal fatxu moo nekk 901. Mhm. nekkul loo war a zikar nag zikaroo ko dama laa wax ne rek lim bi foofu lu jóge 901 mhm. yi foofu lañ ko génnee kon nekkul looy zikar yow sattaaru ak latif rek ngay zikar. Mhm. kon ngeen jàppale ma ci question woowu ngeen xam ne képp ku gisee vidéo bi da nga xam ne yow liggéeyoo nasrullahi wal fatxu isaa jaa laaloo ko sax. yaa sattaaru nga liggéey 901 yaa latif waaye yéene bi mooy. nasrullahi wal fath mu ngay ut. Mhm. moo tax kon loolu leer na. leer na waaw noonu la demee sëñ Mawla. macha allah jërëjëf sëñ Malick xam naa dañuy delloo kàddu gi rek. waaye di wax rek. Mhm. tàggatoo xam ne du tàggatoo. Mhm. maanaam ñu gën a góorgóorlu ci xam-xam. waaye ñu gën a góorgóorlu ci dëggu ndax ay fenn du bay boroom xam-xam na gëstu ba xam li mu xam te mu jëfe ko ngir yàlla te laajte lay àqam. kam yu jëflanteel xolam mën a sedd. macha allah kon laa xam ne nañ ko def yóbbal ñun ñëpp ay taalibe dañuy sàkku amaguñu dara. Mhm. di wax in uridu ila al islam masataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf. cabinet Sajaratu Touba ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal adresse bi nag benn la ñu nga ci Kër Massar terminus 53 bi numéro téléphone bi di 77 539 19 04 wala 77 507 38 yéen ñi nga xamante ni da ngeen a jaaxle woon ci xeetu feebar yi moo xam diabète kyste fibrome arthrose impuissance sexuelle maanaam tëlee ci wàllum sëy moo xam prostate hémorroïde bi feeñ ak bi làqu maladie dermatologie sa derub yaram bi ami jafe-jafe am na tamit massage automatique ba ci massage manuel Serigne Malick liggéey mi yàlla baaxal laa biir lool ci doomu aadama yi ne ma sa jaratu Touba bi képp koo xamante ni da ngaa am jafe-jafe ci wàllum këyit maanaam nga tukki wala it nga bëgg tukki wala it nga bëgg ay muslaay képp koo xamante ni tamit cet dala sonal rawatina nag nga bëgg a ubbeeku nga bëgg am kaaraange maanaam aar sa bopp waa jaa ngi nii Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal dina la tàggat ci wàllum xam-xam maanaam secret yi nekk euh, ci téere alxuraan yi mën nga faa yegg si ngir wecceeku ko kon mbok mbokk yi adres bi benn la Kër Massar terminus 53 cabinet Sadiaratou Touba ca Kër Massar terminus 53 ngeen fekk fa Serigne Malick Guèye mi yàlla baaxal mbaa ngeen woo ko ci 77 539 19 04 wala 77 507 kon mbokk yi xarit yegg leen fa seen aaja faju